dal leen ak jàmm yéenekaay yu bari xëyandoo tey projet de loi d'amnistie mi ñu ne teeri ji na ci assemblée nationale yéenekaay bi ne projet gi ni mel nguur gang cay gaawtu ngir ñu mun koo mattal waaye nag bu deful ndànk mun na am jafe-jafe ca CPI ko fàtte bu ñu sukkandikoo ci maître Amadou Diallo bu Amnesty International Sénégal jàpp ne ak lu mun a xew buñ ko daganale fii ci réew mi ci assemblée nationale mun nañ ko bañ a daganal ca CPI CPI mun naa topp nguurug Sénégal ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne def nañu Sénégal lu ko dalee 2021 jàpp 2024 euh, waa Amnesty ci Sénégal ne ànduñu ci googulee ci projet de loi d'amnistie euh, PDS ñoom ñu ngi ci guddi gu bër setagul Karim Wade daañu dina def kéemtalaay kattan ngir projet de loi d'amnistie gii ni mel mun a jaar ci assemblée nationale ngir lu neex njiitu réew Macky Sall waaye nag bokkam ci élection yi mun na am jafe-jafe mu ngi ci yéen a bi di Walf euh, Quotidien yéen a bi di critique mu ngi ñu koy dégtal état bu Sénégal mu ngi ci tànk forcé mbir yi ngir projet de loi d'amnistie gi ni jàll ca na mu gën a gaawee ci assemblée nationale njiit réew Macky Sall lam ca jublu mooy woote dal ak jàmm ci réew mi Thierno Alassane Sall ne xel xalaatul mu woote xel xalaatul mu daganal googule projet de loi d'amnistie ndax du ngeneel ci réew mi ña jot ña ca a fàttu ci wàllu politique bi le projet de loi daf leen di fàttaat ay seeni mbokk ne ci jafe-jafe am góomu xol ba faw loolee doon lu métti Thierno Alassane Sall mu ngi ci yéen a kaabi di euh, critique yéen a kaay geneen le quotidien projet de loi d'amnistie gàngoog njiitu réew Macky Sall mooy na ci projet yéen kaa bi di ñu fàttali ne eh, projet de loi googee nag mu ngi soxal ñi def naka sudul noonu ñi def ñaaw teef diggante 2021 ba 2024 eh, Ousmane Sonko mun na fe jaare amat afia maanaam mun a falu folli ak itamit eh, fal am sañ-sañu woote yéen kaa bi moo ñu ko yëggee bokk na ci tamit commission des président jot nañ ci conférence des présidents jot na ci addu démb ci assemblée nationale commission des lois moo ci càmbar ñu dem ca euh, plénière ca assemblée nationale yéen a bi di Sud Quotidien génnagul pencum ndaw réew mi projet de loi euh, d'amnistie gàngoog euh, ñu ci fas yéene jublu ndax dañ ko woteem déet euh, laaj la gu samp ci jamono ji yéen a bi di Tribune ne am ba des mooy projet de loi d'amnistie gi ni mel dafa ruslu ci mim réew gàcce la ndax dafay dooleel ñay def naka sudul noonu ci wàllu politique maanaam def naka sudul noonu def njombe ak ñaawteef te dara du la ca fekk yéen a cabinet njiitu réew Macky Sall ca jublu ci projet de loi d'amnistie daf cee bëgg a jaare aar ay nitam sooy ay nitam ñi nga xam ñoom lañ doon tudd ci wàllu recrutement ay nervi ay nervi mu ngi ci yéen ak caabi di turbine l'évidence ne projet goge eh, société civile ak ñenn ci way politique yi ànduñ ci dañ ko dàq ne war ñu ko fee daganal yéen ak caabi di l'info mu ngi ñu dégtal lu aju ci élection présidentielle yi lañ ñu jot a tënke ca dialogue ba jébal nañ ko jiitu réew Macky Sall ña ca doon dialogue jàpp ne ñaari fan ci weeru mun nañ ca amal élection présidentielle yéen ak caabi bu ñu defu ndànk nguur gi mun naa taafantaloo xew-xew diine ya cay am ba dàqaat yi lee woote yéen a kaabi di Le Soleil ne dialogue national ba jébal na seeni euh, bataxal lañ ca jot a tënk njiitu réew jot na ko démb euh, bokk na ci googu lépp euh, liggéey dañ ko jébal conseil constitutionnel ngir mu joxe ci xalaatam laataa ñu koy tàbbil ca assemblée national yéen a di yor yor di mu ñu dekkal ne njiitu réew Macky Sall jotut a sàmmoon tekk article 27 bu constitution bi jëm ci li nga xamante ne mooy datu élection yi yéen a kaabi ne projet de loi gi mu ngi jur coow Ousmane Sonko bu ñu deful ndànk mun naa bokk ca ñey dagaan battu askan wi saay bu ñu yeesalaatee processus électoral bi yéen bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk allo conseil constitutionnel ci jamono ji moom la ñëpp di déglu ci jalog national beek la ca tukkee ndax dina ko daganalam déet le mandat mu ngi ñu dektal njiitu réew mi Macky Sall ma ngay négocier eh, gannaaw ñaari fan ci weeru avril ndax dina demam déet eh, le mandat moo ñu ko yëggee yéen a di source ñu yëggee assemblée ak la cay xew waaye nag euh, UCAD université googe daanaka ma ngay tànn ay étudiants dootuñu nangu ci ay étudiants yu def naka su dul noonu di jàngee ca UCAD yéen kaay ba ñuy dégtal suñu lamb first to first euh, di jàkkaarloo gi dox ci diggante Eumeu Sène ak Sa euh, bokk na ci googu de combat dañ leen géewal juróomi fan ci weeru mai lay doon ñaari mbër yi kenn kum kenn ku ne daanaka bàkku na kañu na ne say bu arbitre sifflé gi du yàgg day teel jeex diggante Sa Thiès Thiès ak Eumeu